mbokki internet yi mbokki Tivactu euh, TV tey moom maa ñëwaatoon seen deuxième émission tànnaasu tabaski tànnaasu tabaski nag bu ñu ko waxee comme démb rek li ma leen ko limalee tey nag dañoo ñëwaat tamit seetaan seet si koo xamante ne daanaan bu mag a mag la muy Pofashion euh, l'élégance des grands marques Pofachène ah, ñoo ngi lay nuyu bu baax a baax a baax ginnaaw ah bala maa nuyu sax di dem ci Pofachène damay nuyu ñi nga xamante ni caabi daf leen féete ginnaaw ñi nga xamante ni seen loxo tamit ak ñi nga xamante ni pression bi a jàpp ci tabaski bi ñoo ñëpp maa ngi leen ziar bi wér a wér a wér ak ñi nga xamante ni dañoo nekk ci ah, prison yi yàlla yóbbuwaat leen seen i njaboot ban ma ban ma mën a passé li nga xamante ni moo di tabaski bi ak seen ak ñu xam ne dañoo tëdd ci loolu hôpitaux yi yàlla seen ay bopp bu baax a baax a baax ah, ñoo ngi lay nuyu Ah, bu baax a baax. soxna si waaw ñoo ngi lay fay ñoo ngi lay fay bu baax a baax alhamdulilah. Ah, tey nag ah, ginnaaw bi ñu ñëwee sees si la fi nga xamante ni mooy sa place nga dalal ñu dalal bu rafet macha allah tey dañ lay wax nan ngay dundee tendance tabaski bi li nga xamante ni moo di tendance tabaski. waaw ñu ngi ziar bu baax soxna si bon tabaski bi moom tendance bi comme ni ñu dundee chaque jour rek noonu lañ koy dundee saa su nekk parce que événement moom. dafa am pression bu ci am waaw pression bi mooy que ni ñëpp dañuy jëm ci benn ñëpp dañuy am benn destination bu ñuy jëm soit mu nekk korité tabaski benn événement bu mën ci doon rek nit ñi dañuy naan ci événement boobu ci lañ soxlaa seen ay yére donc da ngay def le tout pour mën a jaayante pour yére yooy nga matale ko livrer ko seen ay borom d'accord ci livre boobu la ñu ñëw ñu ñëw fi gis fi li nga xamante ni moo di ay yére yu góor ak ñu gis fi ay ay chemise ñu gis fi tamit li nga xamante ni mooy ay filafiir la ñu nga koy ñaw yow da ngay ñëw ñëw jigéen wala ñëw góor rek nga ngay ñëw waaw bon donc man sama professionnalisme ci ñaw góor la gën a féete waaw ñaw jigéen laa njëkk a nekk di ñaw Dakar ci laa njëkkoon di commencer après finalement ci la vire ci ñaw góor yi jàng ko jàng ko maîtriser ko aussi tamit waaw donc ñaw góor yi ci laa gën a basé wu parce que ci sama clientèle ci la ëppee mm-hmm. donc dama ci am clientèle partout moo tax peut-être ñun ay ndaw lañ mais comme clientèle bi nga am selon sa liggéey kon donc ci loolu ngay ëpp looy concentré wu. yu jigéen yi aussi dama ciy dóor mais sans dépend ci sans dépend ci yëre yi parce que dafa am yoo xam te ne ci loolu laay gën a basé wu si côté jigéen mu yëre tubaab mm-hmm. comme lu ci mel ne ay unisex ay chemise xam nga ay bas large ay chemisier ay spencer yooyu noonu loolu yàlla may nañ ci tuuti notion ñu ngi ciy góorgóorlu bu baax. par rapport ak tabaski bi est-ce yooyu noonu dina dox lu ci mel ne ay bas large lu ci mel ni tamit ay euh, tenues yi nga xamante ne moom la jigéen ñi di euh, faral di sol. bon xam nga question solu question guu la xam nga solu ci guula la nekk liñ naan ni ku nekk ak sa guu tu vois xam nga tabaski day jot exemple da ngay gis ñoo xamante ni nii dañuy bëgg jigéen ñoo xamante ne dañuy bëgg dem jënd eh, sol ay taille basse ñi sol robe ñi sol ay marinière comprendre nga comme lu ci mel ni ay brodé yi génn ay perxa ay mbasin riche jasner xam nga tendance yi dafa bëri aussi am na ci ñoo xamante ni ñoom loolu moo leen choyé moo leen neex comme am na benn ensemble bu ma lay wan léegi naan la couple moo ko moom comprendre nga ensemble yooyu noonu jëkkër ak jabar moo ko moom donc am na ci jigéen ñoo xamante ni loolu moo leen neex dañuy il préfère elle du moins dem jënd benn tissu fleurette bu rafet wala dem jënd benn fil à fil wala benn tissu coton coton suisse xam nga bu tissu original wala Oxford tissu bu baax qualité nga dafa leen ko benn robe robe chemise bu rafet bu classique boo xamante ni mooy loolu ñu boole ko seen ay talon parce que solu tendance la solu style la ak li ñu naan solu. Euh, feeling la waaw <laughs> ci ci ci nit ki lay ci nit ki lay nekk ça ne veut pas que ni mm-hmm. lii moo am rek lii moo lii la ni lii moo xew rek loolu la gars yi di daw di song mm-hmm. nit ki mooy xool li nga xamante ni loolu la sentir loolu la bëgg sol mm-hmm. tu vois man exemple événement bu jotee damay bëri client yoo xamante ni nii simple laa la ëpp lu ma leen di ñawal te pourtant ay nit yu am maanaa lañ ay autorité lañ xam nga yàgg naa leen liggéeyal ça des années mais chaque événement damay remarqué ni ñoom tissu yi classique la ñuy dem jënd nag tissu yu cher lay doon mhm. mais du doon ay jasner du doon bazin riche du doon lenn mais tissu simple lay doon nga ñëw leen ko costume africain bu rafet ñu sol ko waaw go papi fashion laa mën a wax yow mës nga am problème ak say client li nga xamante ni moo di redoubler <coughs> am na client yoo xamante ni boo leen yoree ñoom dañoo doy waar sama classe gii nii dañ lay sonal fatt la boo leen ñëwalul est-ce que loolu la dal ci ay client waaw bon laaj nga ma nag question boo xamante ne nii mhm. question bu graaw la ci bu bu bu yéeme ci ci ci tailleur mhm. comprendre nga parce que xam nga mode bi dafa dafa dafa yaatu mhm. te aussi ne métier tailleur dafa doon lu sensible comprendre nga yaa ngi nit ñi parfois di nga di nga di nga nit mën na wax lu mënul mais mënut a def lu mënul tu vois ce que je dire yow mën ngaa wax loo xamante ni mënoo ko mais mënoo def loo mënul nit da ngay def loo loo li nga mën rek ngay def comprendre nga parfois client dina ñëw nga jël ñawam xam nga teel a limité waaw parce que aussi da ngay teel a limité pour teel a libéré wu mais parfois di nga am benn benn dog ci diggante bi soit mën nga feebar mm-hmm. tu vois soit lenn mën nga am ay problème sa machine problème bu nekk mën na la dikkal parfois di nga am tardement parfois doo ko am mais da ngay ba. loolu nga mën koo éviter moo gën waaw parce que man boog sama liggéey boog lu ci bëri du ma ni duma ko am mais lu ci bëri moom yooyu noonu bon dama koy éviter dama koy éviter tardement yooyu dama koy éviter parce que loolu mooy professionnalisme waaw te loolu la ñuy ñaan yàlla aussi fexe ba satisfaire client yëpp bon doo doo tardeel benn ñaw quoi loolu daal mooy mooy mooy mooy bëgg-bëgg yi quoi ñu gis ni Papi Fashion sonn na lool événement bi jàpp ko daw commencé nga veillé wala commencé go veillé ndax tey di bari fii di dañu commencé veillé waaw man nag euh, sama liggéey sama liggéey donc mun naa ni ajuma ko ci événement dañuy waxtaan wax dëgg man sans événement sax mhm. donc dama am emploi du bu muy liggéey mhm. waaw tout le temps yàlla buy def ni tout le temps yaa ngi am ay liggéey mhm. kon donc tout le temps da liggéey man sans événement damay liggéey ñu bëri fii xam nañ depuis avant avant fin du mois bii nii parce que ici à Tivaouane boo xoolee ñun dañuy liggéey 15 jours da dem ba événement bi des 15 jours sax nga gis gars yi di veillé mm-hmm. waaw peut-être man tàmmuma loolu mm-hmm. man bu affaire yi desee un mois rek mm-hmm. yaa ngi dégg ci laay commencé di gën a guddee sama place su ma mënee dem ba 11h ba minuit damay dem pour gagner du temps bu affaire yi demee ba jigéen si aussi ma yokk sama temps dem ba 2h 3h. parfois man veiller ak ñàkk a veiller laa yemale parce que loolu damay jàpp ni question de temps la rek mhm. programme ngay teg rek sa programme ngay liggéeyee boo demee ba sonn nga bàyyi mhm. comprendre nga parce que mën nga veiller da ngay gis ñu veiller liggéey naan dañuy veiller nga liggéey ba trois heures du matin mhm. nga tëj sa place dem ñibbi nelaw ba midi wala une nga ñëw ubbi loolu amul sens comprendre nga mieux vaut nga liggéey ba minuit sax nga wàcc xëy suba huit heures fekkaat la sa place kon donc veiller ak ñàkk a loolu ajuwul ci ci ay ve événement nit ñi dañuy ve non programme programme de euh, programme de travail dafa am booy liggéey da am programme mm. waaw loolu laay yokk sama mbokk tailleur yi ak ñenn tailleur yu ndaw yi nga xam dañuy doog a jóg waaw léegi ñuy ñuy bàyyi loolu xel affaire bi du ci temps bi ngay veillé wala affaire yooyu noonu da ngay xool nooy programmer nooy liggéeyee pour mën ci génn tey nag ñu ñëw fii gis si benn dara bu nice lool macha allah mu def bula la ko man ñu gis nga daamini ko wëñ defal ko multicolore wëñ bi am na doore am na bleu lii nii nan nga ko ñëwee ci. Mhm. bon lii daamina bi donc grand boubou la. Mhm. bon grand boubou naar la. waaw li mooy grand boubou naar parce que boo déggee ñu naan grand boubou naar si selon poche bi ni ñu koy bindee la. Mhm. comprendre si poche bi ni ñu koy daggee doon donc mhm. simple la mhm. grand boubou simple la ñu ñaw ko ton sur ton. waaw ñawal ko benn suñu mbokk taalibe rek. waaw moom lañ ko ñawal nii. waaw tey jii eh, ñu gis ni grand boubou dafa bari lool ci tabaski gi ak lawatina eh, mooy tenue africain yéen grand boubou bi ak tenue africain ban moo ci gën a gaaw ñaw ak ban moo ci ëpp xaalis. question bu xaw a jaxasoo nga ma laaj parce que <laughs> grand boubou ak tenue africain yi ban moo ci ëpp xaalis loolu moom bon man peut aw ma ci réponse bu cohérent quoi waaw parce que ça dépend rek grand bu ça dépend ci ni nga koy jëlee mm-hmm. comprendre nga mm-hmm. parfois mën nga jëlee grand prix boo xamante ne nii peut-être da nga koy defee prix xéewal mm-hmm. parfois aussi nga jëlee grand bu selon ki nga koy ñawal sa nit la dafa am loo ci xool donc da ngay xool rek yow noo ci mën a génnee pour ñawal ko comprendre nga costume africain yi aussi mhm. bu dee ñaw ñaw simplicité mooy ñaw mhm. costume africain moo gën a compliqué ñaw simple moo gën a compliqué waaw boo demee ba ci tailleur yu mag yi nga laaj leen ñoom question boobu noonu dinañ la boo ko boo leen ko laajee dinañ la répondre même réponse parce que simplicité nga dagg simple ñaw créer comprendre nga nga créer dara ñaw ko loolu c'est plus compliqué que loo xamante ni nii da ngay ñëw rek dagg dawal sa baat monter tu vois ce waaw ah, donc man pour man sama gis-gis man moom simple bu may liggéey moo gën a compliqué ci man parce que bi ma koy jàng sonn naa ci. Mm-hmm. te aussi tamit bu ma koy liggéey dama ciy sonn dama ciy am benn stress bu graw donc moo gën a métti ci man. Papy Fashion dafa def formation tailleur wala. waaw am nañ fuñ jot a jaar nag. Mm-hmm. waaw dakaar am nañ fuñ jot a am nañ jot a jaar parce que. nekkoon nañ ak euh, benn tailleur bu mag mm-hmm. ku ñëpp xam peut-être mu naan Sénégal gépp xam nañ ko doon naa liggéey ak moom waaw nekkoon fa ci bërëbam bi may doog a dem Dakar ñu naan ko Xarim Kassé design mm-hmm. waaw ma koy nuyu de passage mu nekkoon sama waay lool mm-hmm. liggéey naa ak moom def naa ak moom quelque temps donc du ma nekkee ci moom aussi amoon naa ay ñenn ñoo xamante ni nii doon naa leen wër ñu nekkoon ay professeur en modéliste ku ci mel ne ay Moussa Diouf nekk univers de la mode retraité na mhm. ma ko daan fekk ba caaro yi mhm. bon di dem këram di jàng di jàng foofu ñaw mu ñuy tegal tablo di ñu tracel di ñu jàngal ni ñuy daggee chemise ni ñuy daggee manche veste ni ñuy daggee pantalon mhm. donc di ko nuyu de passage parce que jàppale nañu ci lu bëri ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ak patron yu bëri yoo xamante ni nii buñ leen doon lim euh, ñu fi jógee waaw ay ndaanaan yoo xamante ni daal fii ci Sénégal ràññee nañ leen yàlla def na am na ñuñ ci jot a jaar ci seen i tànk waaw te ñooñu meruñu daal kon ñu ñu ngi sant bu baax ci côté boobu waaw euh, ban at nga commencé beru li nga xamante ni moom mooy métier tailleur waaw donc euh, man mm-hmm, mm-hmm. donc euh, uh-huh. moment yi may beru mm-hmm. moment yi may beru bon ma fàttali ko bi parce que ñaw dama ci yàgg mm-hmm. je m'excuse dama ci yàgg mm-hmm. parce que j'ai débuté ici à Tivaouane fi laa commencé ñaw mm-hmm. ma commencé fi ñaw après ma dem dakaar ma demee dakaar jaar naa ci ay place yu bëri jaar naa ci ay place yu bëri yoo xamante ne ni tey boo moo laajoon mun naa la wax place yu ma jot a jaar yëpp nga xam ni ñooñu ay ndaanaan lañ bi ma jugee ci loolu aussi tamit yàlla daf ma am toute une ci li may liggéey doon naa teg sama machine sama kër di liggéey di dem ndànk-ndànk en même temps teewul aussi dama tarbiyu ci patron yi ma yoroon di tarbiyu ci ñoom di naxante ak ñoom ngir ñu may yokk xam-xam donc mun naa ni ay deux mille côté ay deux mille treize deux mille quatorze côté boobu fekk na donc maa ngi commencé demal sama bopp mais terewul aussi maa ngi am ñu may liggéeyal Mm-hmm. maa ngi am ñu may liggéeyal mais maa ngi doon demal sama bopp mais mais nga am ñeneen ñu ma doon liggéeyal mm-hmm. waaw donc yàgg nañ ci loolu nekk nañ Dakar liggéey nañ fa loolu mais mm-hmm. bon amoon tuuti ndog-ndog nag waaw mais sant yàlla. d' accord professeur moom mi ngi euh, li nga xam ne xale yi moom moo ngi leen di informer wala amul benn xale boo xam moom moo ngi koy <coughs> jàngal li nga xamante ni moom moo di tailleur bi. waaw actuellement nag fii à Tivaouane man amaguma ko. waaw amaguma ko parce que problème bi mooy. bu fekkee da ngay liggéey te sa liggéey dafa strict maanaam danga bëgg liggéey bu jaar yoon mm-hmm. danga bëgg liggéey bu professionnel mm-hmm. da nga am aussi ay clients yoo xamante ne nii peut-être mën naa ne ay clients yu compliqué lañ compliqué wuñ sax mais ay clients yu bëgg lu baax lañ mm-hmm. sa liggéey da nga koy xoolaat te kon ñun Tivaouane lañ dëkk bu ñu sañoon aussi dañuy am ay éléments yu ñuy liggéeyal fii mais pour nga am xale bu jeune bu engagé bu bu jël am responsabilité comme ñun niñ ci jaaree ñun man bi ma ci nekk ni ma tollu nii du ma ni ni ma toll laa toll. Mm-hmm. par exemple nekkuma xale nekkuma xale bu ndaw te dama jëloon samay responsabilité di dem ci place di jàngi. Mm-hmm. am naa sax samay morom yoo xam te ne dañ ma daan romb ci place di ma reetaan mm-hmm. wala di ma romb ci place di ma kaañoo comprendre nga mais terewul ma xam li ma xam xam li ma bëgg léegi nag jamono ji dafa toll foo xamante nii jeunesse bi engagé wuñu mhm. jeunesse yi ñu si bëri par exemple am nañ ker kersawu mhm. dem toog nii dañuy jàng dara ku ci nekk da ngay bëgg a xëy rek demal sa bopp wala nga bëgg a xëy rek am mhm. waaw te am am du loo xamante ne nii dañ koy dañ dañ koy waaxu lépp li ngay gis àdduna lépp loo gis rek dafa am ay étape ay escalier la waaw waaw petit à petit rek. l'oiseau fait son nid quoi voilà. Euh, sans plus tarder duñu jël sa temps lu yàgg na xam gis nañu événement bi dafa xat ñëwi aussi bari na joxe sa ay kàddu yu mujj sa ay clients ñi nga xamante ne aussi ñoo di sa ay fans. waaw donc euh, sama kàddu gu mujj ci samay clients mooy maa ngi leen di waaw parce que pratiquement particulièrement sama clients yu ci bëri mun naa ni sax am na ci ñoo xamante ni Tivaouane lañ dëkk. di nuyu sama clients yi dëkk Tivaouane am na jus yu bëri ñoo xamante ne aussi ñoo ngi à Dakar ak ñi nga xamante ne ñoo ngi extérieur ñëpp maa ngi leen di nuyu ñi may ñawal foofu ñëpp maa ngi leen nuyu maa ngi ñawal maa ngi nuyu ñëpp ñi may ñawal maa leen di nuyu bu baax comprendre nga képp ku ma ñawalul tamit maa ngi lay nuyu di la ziar di ñaanal tamit di la ñaanal sa yére tailleur bi ñawal la ko ñaw bu rafet comme ni nga ko bëggee waaw di wax jeunesse bi aussi tamit ñu gën a góorgóorlu waaw te li ñu naan un jeunesse engagé waaw jeune da ngay engagé da ngay am responsabilité da ngay gëm sa bopp. Mhm. waaw nekk xale terewul xam sa bopp xam li nga bëgg. waaw liñ naan sukk dura tere yóbbu say om mhm. waaw da ngay naxante ngir yàlla may la dara. waaw xam-xam nag moom lu ko waay jëndee jar na ko te ñu ngi sant yàlla bu baax ci xam-xam bi ñu may ci tuut. ñu ngi ciy góorgóorlu ñu ngi ciy sant yàlla bu baax. macha allah yal na yàlla xeeb dolli xam naa man moom yëre yi rek laay sol damay ñëw ak nga may ñawal ci yëre yu baax yi. ak euh, tenue yu baax yi. incha allah loolu la woon euh, tabaski ñu ànd ñu ak. pis euh, papis ñu ànd fashion waaw kay xale bi nga xamante lu mu ñëwul baaxul ci tenue africain macha allah di leen jox di dajee ba beneen yow incha allah képp ku bëgg ci yëre bi ba sol nag yére bu rafet bi bu nice bi dangay ngay seeti Maodo Couture mi ngi nekk fi nga xamante ni moo di wetu course ba oh, mën naa wax ni marché euh, bu ta marché bu bees la nekkee après dinañ leen defaral numéro bi suuf di leen jaajëfalaat bu baax a baax a baax adama euh, incha allah